fexe ba ñoŋal organisation dixième congrès ordinaire bi daayira wilaya war a def ci weeru janvier bi ñu dëgmal moo tax ñu amaloon ab CLD tey jii ci àllarba ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 2023 ca sous-préfecture bu Ndaam boobule daje nag mi ngi amoon ci teewaayu sous-préfet bu Ndaam waaye it mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo jiite organisation wu bile congrès ba Bassirou ñaan doon kenn ci membre comité d'organisation bi di dellu si ci solos congrès bile. congrès nag doon loo xam ne mooy ndaje mii ëpp aw nit mu fédération bi di woote congrès bi nag li muy jariñ moo di du màggal niñ ko baax baaxoo xame ci li daayira yi woote waaye noonu ci deux 2019 la ñu defoon su neuvième congrès ordinaire defe ko fii ci dar daru mën naan euh, congrès nag mu ngi war am par juróomi at juróomi at yi nag day jeex ci euh, mille vingt 2024 bi te ci bi ñuy daje ci congrès 2019 dañoo am yuñ tënkoon yu fédération bi tënkoon ci ay bàngaasam lu demee ne li mu bëgg a def ci wàllu njàngale feeg juróomi at li mu bëgg a def ci wàllu économie ak ci wàllu socialité feeg juróomi at li mu bëgg a def ci wàllu finance feeg juróomi at li mu bëgg a def ci wàllu communication feeg juróomi at li mu bëgg a def ci wàllu organisation feeg juróomi at li mu bëgg a def ci wàllu administration feeg juróomi at ak sumb yi mu sumb ci wàllu relation extérieure feeg juróomi at loolu la ñu xalaatoon ba jubóo ci ne ci 2019 lii ak lii dañ ko mën a def ci juróomi at yi juróomi at yi jeex na nag dañoo war a taxaw taxawaat seetlu li ñu defoon ci juróomi at yooyu li ñu bëggoona def ci juróomi at yi ndax moom la ñu def lañ ca def ak lañ ca defut lañ ca defut lu tey ñu def ko waaye sumbaat nag yeneen xàll ci domaine yii ma wax bu ci nekk fekk juróomi at fekk 2028 bala ñuy defaat congrès lan lañ ci bëgg a def. ñu war ko amal ci diirub ñaari fan moom Bassirou ñaan li ñu xamal programme bi naka la war a demee. bis bu njëkk bi le 6 danañ ko ubbi bu ñu ubbee. secrétaire général bi dana lire rapport d'activité maanaam bànqaas yi ma tudd lenn lu nekk li ci fédération bi def 2019 ba 2024 euh, bu ñu noppee itam kilifa yi danañ fa jël ay kàddu waaye itam ñu xamle ne dañ ko jiital ab day ndax congrès bi day ànd ak ko conseil fédéral conseil fédéral bi nag atelier yi mu ngi doon le le 30 incha allah fii ci Touba euh, juróom-ñetti atelier wala juróom-ñeent yoo xam ne bu ci ne day wax day waxtaane la la la ko soxal wàllu éducation culture wàllu communication wàllu administration wàllu finance ni ma ko waxoon léegi atelier bu bu ci nekk day am atelier ñu waxtaane ko fa waaye nag bu ca euh, bu bu bu ñu ko defee le le le le le trente le six nag bu ñu ubbee ba ca guddi ga la ñuy def plénière maanaam euh, lii commission yi waxtaane woon commission yëpp daje nag ndax commission bu ne da ngaa beroon waxtaan les commissions yëpp dañuy daje kenn ku nekk li nga tënk ci sa commission nga liir ko devant conseil conseil fédéraux yëpp muy 191 membres. Euh, bu ko defee itam ci suba sedd di la set incha allahu euh, discours yi kilifa yi euh, danañ ko dégg waaye danañ dégg itam résolution yi maanaam li nga xam ne moom la ñu bëgg a def li dalee deux mille vingt quatre ba deux mille vingt huit ba deux mille vingt li ñu li ñu bëgg a def ci ci ci ci ci fànn googu. ndaje mi ñu di ci seenu lu ëpp juróom benn junniy doomi aadama état bu Sénégal war cee amal ay taxawaay loolu tax ba kii di Abdoulaye Kharma di sous-préfet bu Ndaam di ñu xamal ne état bi dina jël mboolem matukaay yi ci war yépp lu mat juróom benn junniy nit dañuy ñëw bu ñu ñëwee fekkee ndaje moomu xam nga lu mel noonu bu amee dafay laaj état bi jël ay dispositions pour que euh, n'est-ce mën a am dans d'excellentes conditions euh, euh, bi ñu ñëwee laaj nañu ñi nga xam ne ñoo koy organiser lan mooy seeni soxla ñu wax ko bu ko defee après ñu jox ñi nga xam ni ñoom ñoo war a mën a faj soxla yooyu kenn ku ne jël engagement par rapport ak soxla yooyu léegi nag li ci des mooy ñu suivre euh, engagement yooyu nga xam ni chef de service yi jël nañu ko pour que euh, bis ba bu jotee ñu gis ni lépp mate na euh, ñu def seen liggéey ci jàmm mën ko réussir ni ñu ko bëggee xanaa di fàttali rek ne congrès bu ni mel waa daayira wilaya danañ ko amal juróomi at yu ne bi ñu mujjee def ñu ngi ko defoon ci atum 2019 ren jii ñu jàpp ko ci le 6 ak le 7 janvier 2024 ca résidence Cheikhul Khadim bi nekkee ci Daaru Manaan